ñu ñaan boobu subhaanahu wa taala ni ñu ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ñu màng ko ci alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom nangul na ko fekk leen ay déwén déwén yu bëri waaye leen ndokkeel ci barab bu tedd bi muy jumaay Sëriñ Tuubaa ju mag ji radiyallahu taala anhu waaye ci eh, eh, dajamu tedd bi muy dajam xam-xam yi nga xam ne eh, daayiratu Muxaddamatul Xidma ñoo koy faral taxawal at ma jot bu weeru koor ñëwee ñu def ay waxtaan fii ci biir jumaa ji xam ngeen ne nañ ko baaxoo defee at ma jot day am bis boo ne dañ cay terale waa daayiratu Rawdu Rayaahiin ci ndigalul sëriñ Ahmad al yi ñu koy ziar di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ak mboolem bokk yi mu ko àndal eh, su ko defee ñu teewoon fi nag ci loolu eh, doon ànd ak ñoom bis kon ñu ngi dellu di sant borom subhanahu wa taala ci may yim nu ma ñu teewe ko eh, ren di ñaan mu mën teewe ko déwén di rafetlu lool liggéey bi nag liggéey bu solo la boo xam ne wax dëgg yàlla ku xam Sëriñ Tuubaa dëkk bi tax mu sanc ko ak lim fi nekkoon ak lim fi digle jataay yu mel nii bu buñ ko fi dee taxawal ci ci jamono yu mel nii loolu wax dëgg yàlla euh, ak cant rek euh, euh, la lañ ko war a gàttandoo waaye dikk ko gunge kon ci tur sëñ Ahmadul Badawi ak turu mboolem bokk yi ma la sëñ Seexna Abdourahmane sëñ Seexna Abdourahmane mi ngi ne taxaw ak sëriñ Mbacke Abdourahmane ak sëriñ Mor so ak yeneen bokk yi fi teewoon yëpp sëñ Moutakha Diatara ñoom ak sëñ Cheikh Makhtar Lo ak yeneen i bokk yi fi teewoon ànd ak ñoom liggéey bi noo ngi sant bu baax a baax waa daayira Muxaddamatul Xidma di leen ñaanal liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko liggéeyal sëriñ Tuubaa ñu yàgg koo liggéey te Euh, ngërëmal euh, sëriñ bi xam naa kàddu yi kon euh, du gudd kàddu cant ak ngërëm ak seede rek ak mbégte la woon asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban adadi